<laughs> alors Woré Sarr <laughs> donc yow daal kuy taxaw di yaakaar ne mën ngaa mer génn PDS mbaa nga gedd dina xaar lu yàgg. waaw loolu moom am na moom xam nga lu tax damaa ngiro gor day ngiro gor gor day ngiro. cest à maanaam da ngay da ngay da dangay da loyal da ngay sincère parce que àddina bi dafa jeex. te damay wutal samay doom ak samay sët aw way woo xam ne bu ëllëgee bu neet ñu ne acam wax dëgg yàlla gore woon na lu ko fi jar xaalis bi day jeex mais dignité du fi jóg dama préféré dee xiif ci ngor ak lekk lu ma neex ci ngore di